ne su see jàllale benn xibaar ginnaaw loolu itam bis yi ñu dëgmal daañu am yeneen taxawaay yoo xam ne daañu ko am ngi daal di fësal rek jafe-jafe yi nga xam ne nguur gi mi ngi leen koy teg ci seen wàllu liggéey. reportage yu ngoon bi nag ñu ngi ko jagleel ñii di yëngu ci wàllu euh, maquette man yi nga xam ne ñu ngi leen euh, duppee maquette man ñu yëngu ci wàllu marché noir njaayum téléphone rawatina euh, fu bëri ci ay gox ci Ndakaar ñu di leen fa fekk ñuy tàllal ay téléphones yu ñuy jaay yenn saay mu doon ay téléphones yu sàcce lu bëri nag ñu di ko teg ci seen ndodd ba xam ndax seen liggéey neex na leen ak anaan lan la ñuy dundee loole ñuy teg ci seen ab ndodd sunu ay ndaw doxantu woon nañu foofe euh, ca Kër Massa di fenn ci ay bërëb yoo xam ne dafay dalal yooyu le euh, Market Man wàllu tàggat yaram euh, Jeux olympiques Paris 2024 daal dinañ koy ndar képp euh, niki tey ji ginnaaw ñaari ayu bis yoo xam ne euh, mu ngi amoon ay jongante ci wàllu tàggat yaram foofe ca Paris la France mu mel ni rek lu tollu ci téeméer ak ñaar fukk ak juróomi médaille d'or moom la États-Unis daal di am ba waral nag mu jël raw gàddu gi ci yeneen réew yi ndax Chine moom moo ci tegu tegu ci ñaareeli place bi ak 91 médailles France mi nga xam ne nag moom moo dalaloon euh, boobu lépp euh, jongante daanaka ci juróomeeli euh, place bi la tollu ay médailles yi mu jot a am mu ngi tollu ci 64 mbokk yi ponk yi moo nar a gën a fës yaatal gi léegi léegi lay doon. jaajëfal leen bu baax a baax ginnaaw bu ñu rafetloo seen ànd ak sunu ay programme ñu tàmbali xibaar yi ak nañu leen ko junjee woon ca bopp ba jafe-jafe yi nga xam ne euh, ñuy euh, yëngu ci wàllu tasum xibaar euh, jamono ji seen bërëbu liggéeykaay yi ñu ngi koy jànkonteel mu waraloon nag bisub tey jii mu amoon nag lël boo xam ne dajale na ñi jiite yooyu le bërëbu liggéeykaay yëngu ci wàllu tasum xibaar ngir daal xool nees mën a def rek ba dékku jafe-jafe yi nga xam ne nguur gi mi ngi leen leen koy euh, teg bokk na ca nag si li nga xam ne moom la ñu jël ci ay dogal mooy euh, ni ki ëllëg ñu daal di fësal bind ab édito boo xam ne dañ ciy dëxëñ lépp loo xam ne jafe-jafe la te euh, bërëbu liggéeykaay yi di ko jànkonte rawatina te ñii di yëngu ci yoru tasum xibaar ëllëg ca mardi moom nag dañu fas yéene amal bis boo xam ne des su jàllale euh, benn xibaar muy ñu duppee ko journée sans presse ginnaaw loolu patronat de presse bi itam ñoom dañoo fas yéene amal yeneen jéego yoo xam ne euh, bis yi di ñëw daañu ko amal loolu yëpp ngir fexe rek ba daal di euh, jàmma jàkkaarloo ak nguur gi nga xam ne dafa leen a bëgg a faagagal daañ ci ànd ak Matar Bari mi nga xam ne moom moo ñu fa na ba léegi ci ñoom bu ñu desandee ci ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite bërëbu liggéeykaay yi ñu yëngu ci wàllu euh, wér wàllu euh, tasuma xibaar muy patronat de la presse ñoom nag dañoo jàppal tànk kii di euh, Madiambal Diagne ci xët-xët boo xam ne dox na ci digganteem ak ilimaanu jëwriñ yi di Ousmane Sonko ginnaaw ba ko ay avocam am fas yéene porté plainte patronat bi nag nee nañu réew mi deesu la nekk réew mbirum euh, euh, policier te ki nga xam ne moom mooy jàmbal euh, Diagne am na sañ-sañ indi xalaatam ci na réew mi di doxe kaka wax di Mamadou Ibra kan moom mi nga xam ne moom moo jiite boobu lépp kuréel la. dañuy daal di dellu siwaat ci euh, fitna gi nga xam ne ni ki dëmb juddu woon na euh, fii ci wakkaam ay ndaw yu bëggoon euh, jàkkaarloo ak way taskatu xibaar yi ngir fësal rek jafe-jafe yi nga xam ne seen gox mi ngi koy jànkoonteel way takk der yi ne leen du ci dal ba fitna daal di juddu seen diggante ak way takk yi ñoom nag lañu ñu doon bëgg a fësal mooy seen suuf si nga xam ne nee nañu dañ ko jël jébbal ko ay privé te ñoom ñu bëggoon koo jëfandikoo ngir daal di ci defar ay infrastructure ñu teewlu si ki nga xam ne moom mooy Djibril Ngom yor seen kàddu. defuñu woon leneen lu dul point de presse boo xam ne dañu bëggoon yëglu wax ñu ko defee woon samedi ba la passé ah nuñ ko yàgg defee pour wax li ñu amul parce que depuis 2013 lañ fi defoon benn waxtaan ak président de la république pour que ñu dégager désenclavé Wakam waaw pour ñu dégager désenclavé Wakam ñu ne woon dañ fi jële li fi nekk. mooy lan ñuy bàyyi yoon bu génn cité avion bu génn ba VDN ñu am espace bu ñu ko mën a defee gisuñu ñu wax si ñu ne cité avion ba ñu defee un CRD avec le gouverneur bi ko yabal que dañu ne cité avion na am école am équipement am lépp si Eogène boobu ba tey ñuy déglu ñu bëggoon fàttaliwaat wax yooyu wakaam ne lii suñuy moomeelu maam la woon tey dañu war a ne buñ ko soxlatul ñoom état yu ko réquisitionné woon ñu delloo ko askanu bi ko moomoon suñ lébu yi dëkk Wakaam tey dëkkuwaay la woon pour que tey soxla nañ ko loolu lañ doon woote tey pour yëglu pour ñi yilif dëkk bi dégguñu et malheureusement ça a dégénéré parce que on est juste passé devant eux pour que ñu jàpp ci benn nit et que xale yi ils n'ont pas pu supporter ñu tàbbi nag ci ab ndaje moo xam ne ñaari fan la amoon ñak euh, fële ca Thiès mu dajale woon nag ñi nga xam ne ñoo jiite bokk moomeel yi muy euh, maire yi loo foofee nag ñu doon fa euh, waxtaanee ay ponk yu bari rawatina ci wàllu budget waaye itam liy ñeel wàllu découpage administratif bi nekkoon na ponk yoo xam ne daal nañ koy jukki ñu teewlu ci Oumar Ba mi jiite boobu lépp kuréel la découpage bi moom am nay communes ya nga xamante ne boobu at yi weesu yëpp ñu ngi ci liggéey ak ANAT ndax xam nañ ne am na nay communes ya nga xamante ne euh, seen espace dafa xat maanaam dañoo weesu vraiment seen population euh, fi mu dal dafa yokku ba fi ñu leen fi ñu leen nattaloon dafa xat foog ñu waxtaan suñu biir nag seet naka la ñuy defee redécoupage redécoupage boobu nag bëgguñ mu am coow moo tax ANAT dañu cee associé ñun tam ñu associé ci population bi ñu ngi teg terrain bi ñu ngi cee waxtaan te jàpp naa ne suñu waxtaanee rek dinañ juboo ba def benn redécoupage ba nga xamante ne moo gën a correspondre ak suñu réalité tey. Euh, adjoint au yi leen di tuumal ne yéen seen bopp ngeen fi toogal. waaw moom ku ne moom am na xalaatam rek waaye ñu jàpp na ne ñëpp lañ fi toogal maire adjoint au maire ak conseil. ñu ngi leen ko doon euh, junj ci bopp xibaar yi reportage bi ñu leen jagleel ci ngoon si nag dafa ñeel euh, li nga xam ne moom mooy euh, marché noir ak ñu ci yëngu ñu gën ko xamee ñu gën leen xamee ci marketman yi fii nag si Sénégal mbir mi nag nekk loo xam ne bëri na coow ndax ñoom ñi ci yëngu yenn saa yi ñu daal leen jiiñ sàcc ndax yenn ci ay téléphone yi ñuy jaay dafay jóge ci ay nit yoo xam ne dañ ko. réglé euh, mu mel ni rek ñoom foo dem ci mbedd yi fa ñu koy jaay da nga leen fay euh, fekk euh, fële ca Kër Massa bokk ci bërëb yoo xam ne dafay dalal yooyu le man seen boobu lépp liggéey nan lañ koy dundee ak li nga xam ne moom la ñuy teg seen der nan la ñu koy dundee suñu ay ndaw doxantu woon nañu seet si leen di musa Mané ak Fally Diop daanaka fii fu waay sànni say bët ñoom rek ngay gis taxaw ci tali bi yor ay téléphone portable di jaay ñu leen di wooye ay maquette man ñuy faral di jaayaat ay téléphone portable yu ñu leen indil. fii ne mooy sunu maquette ko euh, waa liggéey bi moom sant yàlla danañ yeewu sangu ñëw génne sunuy téléphone taxaw ci kaw tali bi di xaar client. ay jeunes lañ yoo xam ne nii yoo xam lu ñu bëgg la. Ah, te liggéey rek eh, ñoo leen tax a jóg. Kër Massar bokk ci département yu ëpp nit fii ci Sénégal bile bërëb daanaka léegi ab carrefour la buñ sukkandikoo ba tey ci ñoom ñi lee maquette maa ni ay nit yu responsable lañ wuute lool ak lu ñu leen di faral di tuumaal. maanaam am na ñoo xam ne ñi nga xam ne xamuñu leen mooy milieu maquette maanaam bu ñu déggee milieu maquette yaakaar nañ ne ay sàcc fi nekk wala ñoo xam ne def lu bon leen fi tax a jóg fekkate ay kilifa fa nekk nag ñoo xam ne xam nañ li leen war. boo waree centre bi ak maanaam li fi nekk ci borom place yëpp ñoo ngi commencé ci loolu ñuy woowee market man mooy sampu téye say téléphone daal di taxaw. risques yi ci métier bi daal di bari lool ñuy faral di fekk ci seeni loxo ay téléphone portable yi nga xamante ni dañ koo daal di sàcc dem sax bañ leen di jàppee ay complice loolu nag su amee eh, jaay téléphone sàcc ak nangam ku jógee la ñëw ci market bi di jaay yow li nga li nga ko mën a laaj rek mooy mu defal la décharge génne la photocopie carte d'identité et tout nga jël ci lépp loo xam ne nii daal tey jii boo jaayee sa client ñu woo ko di nga mën a wax ne ah man ko kii moo a jaayee ndax defal na ma décharge nangam ak nangam. yow mii tey sa téléphone mën nga yor benn téléphone exemple benn euh, XR exemple bëgg 11 Pro mais boo koy dugal lan ngay def sa téléphone boobu deuxième lañ koy jàppee doo ko def ci euh, magasin di ko jaay da nga koy mën a samp fii nii téléphone fi nekk. wante rek ñoom liñ jàpp mooy délinquants yi ñu ngi fépp ci bépp métier. boo ti dem. waaw loolu mënul ñàkk ci marché ndax souvent comme li ma la wax rek mooy dañuy dugal si téléphone boo xam ne yow doo xam téléphone bi nu mu demee. dëgg nag def ko lu bon moom munoo ko seppi am na ñoo xam ne tey jii ne liggéey kase leen fi tax a jóg am na ñoo xam ne nag leneen la leen tax a jóg mais nag bu ñuy bu ñu généraliser. ñu daal di àdduna ci ab euh, soxna soo xam ne daanaka moom moo jiite ndongo yay jànge ca lycée John Fitzgerald Kennedy nekk euh, capitaine équipe basket waaye itam doon ay satu Guène moom lay wuyoo mu doon nag koo xam ne euh, njort nañu ne ëllëg dina bokk ci jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy doxal réew mi mu mel ni nag ginnaaw ba mu amee baccalauréat am bëri na loo xam ne moom la mbëbët lu ñeel wàllu tàggat yaram waaye itam si li nga xam ne moom moo ñeel wàllu euh, liggéey nataalam ki di Mamadou Kanté moo ñu ko defal. mën a jiite ajowul rekk ci at yi nga xam ne ni moom lañu am ay satu di firndeel loolee. moom mi nga xam ne ni moo jiite woon gouvernement scolaire bu lycée John Fitzgerald Kennedy doon it capitaine bu équipe de basketball bi teg ci majorette waaye loole yàqalu ko benn yoon jàngam. nit soo amee nooy gérer say temps ak heure bu nekk ak li nga war a def je pense que amul amul lu la si war a mën a sonal c'est juste que nga xam. telle heure lii laa war a def telle heure lii laa war a def et que soo demee ba nekk si li nga war a def nga concentré wu si benn yoon. mu doon meneuse ci biir terrain bi ak ci biir salle de classe yi moom mile di incarner leadership féminine. comme ni ñu koy waxee rek Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne la plupart dañuy wax jigéen mënul def lépp affaire yooyu mais man damaa gis ni comme loolu dem na ba am wax yooyu dem na ba commencé bëri man damaa lancé sama bopp défi maanaam du am lu ma jaaxal même su fekkee dina metti sax mais au moins que nit yi reconnaître ma si et que xam ne def naa ay effort. mu doon ku jàmbaar lool te xam lu ko tax a jóg gannaaw bu mu amee baggam mu fixé wu beneen objectif. man daal après bac nii bëgg naa suivre droit technologique parce que gis naa ni métier bu rare la Sénégal te comme internet ak informatique dafa nekk loo xamante ne c'est très développé ak intelligence artificielle day ñëw nekk métier de l'avenir moo tax bëgg naa dugg ci loolu. Stephen Curry di ko xaritam yi di woowee ay Aïssatou amay mbëbët yu bare ngir basketball bu Sénégal. sport bi moom c'est ma passion te incha allah ñaan naa yàlla dem palais jëli drapeau pour sama dëkk su ma demoon ba Jeux olympiques 2028 ñu bokk ci ma sélection ma bokk ci ñi ñu sélectionné ah dinaa def sama bopp challenge boo xamante dinaa fi andi médaille. gannaaw li mu ràññeeku lycée John Fitzgerald Kennedy fas yéenewul yem fii benn yoon ndax bëgg na dafay jéego ba ñuy tudd tuuram ci taarixu réewum Sénégal. Mamadou Kanté ginnaaw lycée John Fitzgerald Kennedy ñu wax ci beneen lycée muy lycée Valdiodio Ndiaye loole nag Kaolack la nekk ndax euh, ji ki jiite euh, bokk moomeel yi foofee ca Kaolack di euh, Serigne Mbuub nag ci ab ndaje ma fa amoon la daal di porox ndoll daal di fësal mbébétam nag ngir lu toll ci cinquante mille ci ay garab ñu daal di koy jëmbat te dafa fas yéene jël ay ndaw ngir ñu daal di fexe ba loolee mën a jë jëmm ñu mën koo jëmmal su ko defee nag gën a taaral xar kanamu ak Kaolack ñu teewlu ko. ñun tamit Kaolack moom comme ni ngeen ko xamee depuis deux mille vingt deux am nañ programme jàppal ma jàpp chaque année ñu def ci dara ànd ko Eaux et Forêts ba année bi sax budgétisé nañ trente six million yoo xam ne ni laalaguñ ko pour mën a def Kaolack suñu objectif mooy sur les cinq ans mooy def cinquante mille arbres. garab yi ñu fii nag yéen xale yi lañ koy dénk ngeen taxaw mu baax ci kanam tuuti ci cinquante mille arbre yi ñu def danañ def benn genre compétition kuñ jox ay garab nga jëmbat ko jox la ay moyens boo at mi jeexee bu ñëwee xool ko xool nan lañ koy tegewaat en tout cas loolu la lay wax di félicité bu baax Sidi Traoré comme ni mu ko waxee conseil municipal ca vote ba la am parti mais bu ngeen xasee toog amatu ko et je pense que ñoom wane nañ ko man conseil municipal léeg-léeg duñ xàmme sax kan moo bokk fii ak kan moo bokk fee te loolu réussir nañ ko réussir nañ loo xam ne musul am ci Sénégal budget boo fe 4 milliards nga yóbbu ko plus de 8 milliards xam ngeen ne fii tamit euh, salte bi ni mu meloon ci dëkk bi boo daan dugg boo daan génn xëy na lu jeex rek dañ koy fàtte salte beeg yooyeek lu mu mënti doon marché bi kenn daawul wax marché te euh, nawet nga di fa dugg nit ñi dañ daan yëkkati seen balaas ba ci kaw mosaan taw Euh, kenn du dem marché bon y' a de choses yoo xam ne mi ngi démarré àdduna nag du jeex ñun dañuy defar liñ man hmm. keneen ñëw defar lim man suñu ko defaree sëriñ bu ba xar kanamu Kaolack daal di yànje dina gën a indi touriste yi wàllu tourisme nag ñu daal di ci addu ak kii di Doudou Ñaaña Diop moom mi ñu tàbb lu yees mu nekk PCA euh, bi li nga xam ne moom mooy euh, SAPCO moom nag moom moo daal di am mbébétu euh, fexe rek ba fi nga xam ne moom mooy secteur bi ñu di ci amal ay tutori maanaam ñi gën a féete mag ëpp expérience di am lu ñu weccoo xalaat ak ndaw yi yëngu ci wàllu loolu su ko defee ñu gën a euh, mën a euh, suqali seen boobu lépp euh, secteur loole nag mu ngi ko doon yëkkati ci ay kàddu ci jamono joo nga xam ne itam mu ngi doon daanaka dédicacé ab livre boo xam ne mu ngi ko duppee Sénégal l'autre tourisme ñu teewlu ko ci micro Binta Traoré. dina proposer loo xam ni mi ngi dox ci yeneen dëkk yi ñu implanter au Sénégal un système de tutorat. Euh, c'est-à-dire ñi am expérience ci métier bi bari na Sénégal ñi liggéey ci hôtel yi nekk sali et tout ça ñu xool nan lañ leen di dénicher ñu mën a jàppale xale yi pour euh, no serait-ce que leur stage des conseil des choses comme ça parce que dëkk yi tourisme yi dox yëpp système yooyu dafa am doo maîtriser secteur bu complexe la bu difficile doo bon doo doo ko maîtriser liggéey ci ba retraite dem toog croiser les les les les jambes et les bras donc mën nañu continuer aussi jàppale xale yu nekk fii parce que xale yu xarañ lañu ah dañu xarañ et puis man j'en suis convaincu voilà que nii war nañ leen jàppale. ñu àddu itam ci keneen koo xam ne daan nay fësal ab euh, livre mu du tudd docteur Ahmadou Matar Sylla moom nag ci kilifa gi di sëñ Mountakha euh, Mbacké. ca la euh, bind mu daldi di dellusiwaat ci jaar-jaaram waaye itam lépp li nga xam ne def na ko fii ci réalisation la mu euh, jub lu mu bëgg nag ci euh, livre boobu mooy fexe rek ba fësal gis-gisu kilifa ga ci wàllu li nga xam ne moom mooy suqali réew mi. téere bi ma bind ci Serigne Mountakha dama ko bind ci moom ngir mu nekk royukaay. binduma ko ngir ni mooy xalif général des Mourides binduma ko ngir ni mooy doomu Serigne Bachirou tout simplement dama ko bind ngir jeunesse bi mën nañoo am lu ñu roy ci moom mag ñi am nañoo roy ci moom dirigeant yi ñi jiite moo xam ñi jiit ci politique wala ñi jiit ci diine ñëpp mën nañoo roy mu Mountakha te loolu démontré naa ko ci biir téere bi ba mu leer nañ wax naa njiit ci diine lan lay comporté woo bu dee ci wàllu politique kenn ku nekk xam ne yërmande ji mu ëmbal nation bi yëpp société sénégalaise bi yëpp. wàllu gu mujj gi foofu mi ngi wax ci Touba ak yoonu Mouride ah j'ai fait beaucoup de pays ah. dem naa ci àdduna bi fépp gis naa li fay xam gis naa ni muy dox te man dund bi ma jàpp ni jag na ci am am ci réew yooyee moom laa bëgg am Touba man côté côté bi on n'en parle pas waaye bëgg naa cadre de vie bu baax bëgg naa une vie bu ñu desee ba léegi ci li ñeel Touba gi nag dañu ngi ko dëgmal mu mel ni rek ñu ngi ci wattaay yi kuréel gi duppee boppam Mouride professionnel daal di amal ni ki démb ab ndaje moo xam ne dañ ci jikku woon lépp loo xam ne jafe-jafe la saa su ne ñuy amal màggal daal di xalaat itam nees mën a def rek ba daal di koy dindi ba dootul amati ci màggal yi loolu amee woon ci teewaayu Pape Bondagay ay atelier la ngir xalaat ci mbir yu fasantikoo jëm ci amalu màggalu Touba ñoo ko amal di plateforme bii di Murit Pro daal dinañ waxtaanee ay ponk yu am solo jëm ci naka la ñuy def ba mën a indi ñam gu doy gu sell itam ca ville sainte bu Touba. donc défi yi ñu jot relever euh, vraiment mooy problème disponibilité des aliment ak accessibilité ak utilisation ndox mi. peut-être ndox boisson bi bi ñuy naan du am problème mais li nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci waañ yi ak ci wanag yi ak li nit ñi di sangoo toujours dañuy seetlu ne ci màggal bi bu jotee dafay am problème wax nañ ci wàllum hygiène bi wàllum euh, conservation bi ak wàllum naka la ñuy préparer waxtaan nañ ci lu bëri. beneen jafe-jafe bi nga xam ni waxtaanee nañ ko mooy mbirum xëy foofee ca commune bu Touba. panélistes yi lee daan nañ joxoñ baaraamu ñàkkum politique ci wàllu woowee ci gox bu Touba. Touba bu attractive ci wàllu économique yaakaar naa ne màggal gu daanaka lu tolloog deux cent cinquante milliards la ñu wax ci études yoo xam ne dina fa dugg ci biir loolu ñu njëkk a gis comme défi ci ne est-ce que Touba am na politique d'insertion politique d'employabilité boo xam ne xëy na autorité locale bi dina ci mën a ànd ak autorité religieuse yi maanaam pour mettre ko am place bu taxawal ko taalibe Mouride yi wax nañ itam ci lu jëm ci wàllum cet ñëpp xam nañ ne màggalu Touba mbalit mi dina bari bari goo xamante ne nii da euh, yenn saa yi danañ egg dayoo boo xamante ni nit doomu aadama kese loxo nit kese mu mënu koo jël donc te bu fekkente ne ni ñi miin Touba dëgg yenn saa yi dañuy gis Sonaged di def ay opération de mécanisation donc loolu lañ bëggoon ñu yokk ko wut ay points stratégiques yoo xam ne dina am matériel bu ñu fay proposé pour mu soulager nit ñi ci loolu. waaye itam jafe-jafe yu ñu nemmeeku ci wàllu dem ak dikk ci biir Touba naka noonu daal di nañ yëkkati ay saafara ci jafe yi nga xam ni doon nañ ko waxtaanee mu di saafara yoo xam ni daan ko jébbal bi suñu dëgmaal. kilifa yu Touba. Pape Banda ku wérul nag doo mën a màggali ba tax na ab bis ñu daal di koy jagleel wàllu mayee garab fële ci Diamaguène ba nekk ca Ndar la ñu ci mbébét suñ sukkandikoo ci euh, Ousmane Ndiaye mi bokk ci euh, mouvement politique bi ñu duppee MTN te Mary ñaan jiite ko mooy fexe rek ba jàppale néew ji doole yi euh, ngir ñu mën di faju su ko defee ñu gën a mën a wér ba tax na nag ñu daal leen may ay garab waaye ay fajkat itam. itam bokkoon nañu ci euh, ndajeme ngir gën jàppale nag askan wi rawatina ñu déw doole ñi ñu teewlu ci ay kàddoom. tey dañu fii ci jàmm gën comme ni ko président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye waxe woon mu wooñu ci vacances citoyennes ñenn ñi ñi ngi jëm ci mbirum jëmbat garab ñenn ñi jëm ci mbirum set setal ñun nag MTN ñi ngi jubal suñu ay activité ci li nga xam ne moom la ñuy wax ah, mbirum faj santé lii nag ngeen gis gis ngeen nit ñi euh, population bi ni ñu ñëwee ndax tey jii wane na ni encore une fois ne woon ndar suuxe nañu loolu ci mbirum ci mbirum paj ndaxte benn hôpital la ñu yore boo xam ni yàgg na hôpital bi sonn na metti na dara amu fa plateau technique bu insuffisant ku amul toppatoo dëgg-dëgg hôpitalu ndar boo ñàkkul boo moytul da ngay ñàkk sa bakkan looloo tax nag lii am solo ñu àdduna ci wàllu euh, biti réew xibaar yi nga xam ne moom moo ñeel biti réew tàmbali ak mu Uganda foofee nag ab décharge boo xam ne dafa daal di euh, màbb mu jël lu toll ci euh, fukk ak ñaari bakkan bu ñu ca jógee dem ca sudan foofee itam li mu ñi faatu ci li nga xam ne moom mooy taw bu bari bi mu ngi gën yokk ndax jamono ji ñu ngi toll ci. juróom-ñaar fukk ñu ndar ko ak réewum Gambie nga xam ne ex brigadier général bi di Bora Colley nekk euh, ki ñu jàpp ne moom mooy euh, Jingler Jinigler moom nag moom la ñu daal di leeral yi ñu ànd ceeg Pape Bandagaay gannaaw décharge ba màbbee sa Kampala capitale ba ni ki démb ci gaaw gi bilan ba yokk na tollu jamono gi ci fukki doomu aadama ak ñaar yu ci ñàkk seen bakkan police bu Uganda ñoo ko xam xamle tey ji ci dibeer gi bu ñu sukkandikoo ci ëttu taskatu xibaar ya nekk sa Uganda nee nañu ay kër yu bëri ay doomi aadama ba ci sax ay mala ñoo loru ci mbir mi yëf yaa màbb ci seen kaw xewee sa décharge bu Kitezi di ab gox boo xam ne mu nga féetee sa bët gànnaaru Kampala lu ni mel xew gannaaw ay taw yu bëri yu fa wadd démb gaaw gi Kampala capital city authority ab bilan mu ne woon juróom-ñetti doomu aadama ñoo si ñàkk seen bakkan bokk na si ñoom ñaari tuut tonk ñoo ngi wéyal opération yi ngir xettali ñi nga xam ne ñoo nekk si suufu yooyu la montagne déchet yëf yi nag tax na lu tolloo ko junni doomu aadama daw boobu le bërëb sa Soudan ñii loru ci taw yu metti yi fa doon wadd it xewee sa bët gànnaaru réewu Soudan lim nga yokk na nee nañu sa ñàkk seen bakkan weesu na juróom-ñaar fukki doomu aadama ëttu taskatu xibaar yu réewu Soudan ñoo ko xam xamle tey jii ci dibeer gi buñ sukkandikoo nag ci ñoom nee nañ taw yooyee dafa laal bu baax a baax bët gànnaaru réew ma lu ni mel moo waral ay kër yu bëri am màbb tax na sax ba ay njaboot yu bëri daw jamono gi utali yeneen i gox njëkkoon nañu joxe bilan ne woon juróom fukki doomu aadama ak ñett ñoo si loru mbënd di inondation sa réewu Soudan lu ni mel dafa xew at mu jot ñoo ngi koy gën a nemmeeku nag si diggante weeru juin jàpp octobre ñetti at yi weesu taw ya fa jot am faat na ay téeméeri téeméeri doomu aadama yàq fa tamit ay tool yu bëri ñu daan bayee ñu jeexalee si réewu Gambie yoon mujj na teg loxo kii di général Bora Koli si ab bataaxal bu armée bu Gambie siiwal ñoo ngi xamal ni ki fi nekkoon officier supérieur des forces armées gambiennes mi tuddoon nit ni dafa bokk si waa Jongleur nekkoon nekkoonub unité boo xam ne nee nañ daal ñoom ñoo daan jëfee lépp luy xeetu ñaaw teef boo xam ne njiitu réew moo di Yaya Jammeh daal dogal foofee si réew Gambie moom Bora Koli dafa rëccoon yoon ginnaaw bi njiitu réew Gambie ba woon di yaay Yaya Jammeh daanoo si weeru janvier atum 2017 ba tey bu ñu sukkandikoo si bile communiqué. ñoo ngi xamal ni général Coly moom mooy yóbbu bi la yoon boppam si loxo yoon àjjuma juróom-ñeenti fan si weeru août atum 2024 bi minuit jotee la dem sa caserne bu Yendom nekk sa bët saalumu Banjul armée bu réew bi di xam xamle ni yokkoon nañu sax kaaraange gi sa fa nga xam ne foofee la këram nekk féete sa Grand Banjul général Coly jamono gi mu ngi waxtaan ak takk der yi fas yéene rek jàppale leen si enquête bi nga xam ne ñoo ngi koy wéyal foofee sa réew Gambie laata ñuy ñaanalante ñu àddu tuuti ci wàllu tàggat yaram ndax Jeux olympiques Paris 2024 yi daan nañ koy ndar képp euh, ni ki euh, tey ji ginnaaw ñaari ayu bis yoo xam ne ñu ngi ko doon amal ci ay jongante ñeel wàllu euh, tàggat yaram mu mel ni rek États-Unis ñoom ñoo jël raaw gàddu gi ginnaaw ba ñu amee lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróomi médaille ñaar ñeent fukki médaille en or la ñu am ñeent fukk ñeenti médaille en argent ak ñeent fukk ak ñaari médaille en bronze euh, États-Unis daal di euh, jiitu nag Chine topp ci Chine ñoom quatre-vingt-onze médailles la ñu am quarante euh, or vingt-sept argent vingt-quatre bronze France nag mi nga xam ne daanaka moo dalaloon ay yëf yi moom ci juróomeeli place bi la daal di tàbbi ndax. lu toll ci 64 médailles la am 11 or 26 argent ak 22 euh, bronze di wax rek ne France euh, États-Unis moo ko jiitu Chine jiitu ko euh, Japon jiitu ko ak 20 médailles d'or ak Australie nga xam ne moom mi ngi am 18 médailles d'or réewum Sénégal sax nag bokkoon na ci yooyu la jongante ndax yóbbaale na lu toll ci Euh, ju fukk ak benn athlète waaye ñoom ñëpp daanaka euh, nañu demee noonu lañu ñu ñibbisee amul benn médaille boo xam ne euh, indaale nañu ko fii ci réew mi mbokk yi li moom moo doon xibaar yi ñu jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñu doon teewlu file ki simili yemoo ko juróom ñetti waxtu dinaa fi dikkaat ngir jukki leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan laata boobu wéy leen di ànd ak suñu ay programme jaajëfal nañu bu baax a baax ci teewlu bi